sàmba ab ingénieur la bu xereñ lool ci liggéeyam doon ndaw lu jàmbar lool ci diineem te di ci góorlu lool benn bés waa société am tànn ko ngir mu tukki ca meneen réew ngir jàngaat ba yokk xam-xamam ci xam-xam yu bees yi xew waaye nag moom Samba bëggul dem ca réew mooma ndax am na fi ay liggéey te it am na ñu mu fi jàppale directeur am nag waxtaan ak moom waxtaan ak moom ba yey ko ci ay kàddu ci la Samba Dogo nangu dem tukki Samba waaj na dem tukki bés bu jot muy xëy di gont di góorgóorlu lool waaye nag saa bu wàccee mu yëkkati ab téréb alquraanam di jàng di jaamu yàlla di gëstu diineem ndax noonu la nekke woon ci réewam mi benn bés Samba liggéeyul mu ni day doxantu ca dëkk ba xool lu fa am waaye bi muy doxantu mu gis lu ko yéem lool muy am mbooloo moo xam ni am na ñu taxaw ci seen kanam di woote ak mbaax ñoo ñay di woote ak mbaax di wax ak nit ña naan leen yéen nit ñi képp ku bëgg aljanna ñun de dañ koy jaay ñoo ko yor te ñoo ko mën a joxe ku bëgg pàkk ca aljanna indil xaalis bu bari ñu jox la pàkk jox la aw kayit wuy wane ni yaa ko moom nit ña di buuxante ku nekk di joxe alal loolu yëm sàmba lool am na sax ñu jaay seeni kër jël alal ja joxe ko ngir am aw kayit wuy wane ne am nañ pàkk ca aljanna sàmba dem taxaw ca nit ña ni leen waaw yéen nit ñi lu xew nit ña xam ni kii gan la ci dëkk bi teyit xamut nit ña ni ko sëñ bi ñii ñu baax lañ dañuy jaay aljanna te ñoom ñoo moom aljanna ku ko bëgg da ngay joxe alal ju bari ñu jox la aw kayit wuy wane ni am nga pàkk aljanna ah te ngaa jënd lu ko waay jënde jar na ko de sàmba génne xaalis bu bari lool daal di koy jox ñooñee di woote ak mbaax ni leen man dama bëggoon ngeen jaay ma sawara mbooloo ma di ko ree ak di ko saboote naan ko sawara nees koy jëndee mu ni leen man sawara laa bëgg lu ngeen ma laaj ma jox leen ci alal ah ginnaaw ñoom xaalis lañ bëgg ñu ne ko ah sàmba kon indi indi xaalis bi daañ la jaay sawara sàmba jox leen xaalis ba ñu jël xaalis ba bindal ko aw këyit wuy wane ni yaa moom sawara jëlal yaa ko moom sàmba jël kayit wa taxaw ca kanamu mbooloo ma ni leen yéen nit ñi na ngeen seede bis ni ki tey ni jënd naa sawara maa ko moom man ci sama bopp ëllëg yomal xiyaam nag duma may kenn mu di fa dugg maa ko moom kon yéen ñii doon jënd aljanna jël leen seen alal ngeen dem jaratul di jënd pàkk ndax jënd naa sawara te duma may kenn mu fay dugg ah nit ña kontaan lool tasaaroo sàmba dab leen ba dajalewaat leen ni leen na ngeen xam ne aljanna ak sawara kenn moomu ko nekkul ci loxo kenn ku dul loxoy borom bi tabaraka wa taala képp ku leen wax ni moo moom aljanna mbaa sawara da leen di nax di leen dëmal seeni xel bàyyi leen ko xel bu baax kon nag mbokk yi jaamu yàlla gu sell tënku ci lu yàlla bëgg ak yonentam alayhi salaatu salaam mooy may nit ki aljanna bari na lool ñi woote woo ni ñoo moom aljanna ñoo ñee ñépp dañuy nax nit ñi di lëndëmal seeni xel nañu ko bàyyi xel ku bëgg aljanna tënkul ci li yàlla bëgg ak yonentam alayhi salaatu wassalaam yéen ñi di woote ci yoonu yàlla na ngeen woo nit ñi ci yàlla yàlla képp dara gënuta màgg nag woo nit ki ci ak wéetal borom bi tabaraka wa waaye dara gënta yées woo nit ñi ci ak bokkaale yàlla wala di toog palaasu borom bi yàlla mooy ku wéet ka jurul kenn kenn juru ko yàlla amul soxna amul nawle amul dend moom mooy kenn ki lam yalid walam yulad walam yakun lahu كفوا